li ñu def ñoom Abdou ngay Gueye Xrum Xax Ousmane Sarr ak ñoom seen c'est de la torture mais c'est normal parce que boo munee rey Pape Sarr maas ko sotti ko diluant mu takk ba xam dem deewi hôpital ba tey jii nii déni total de justice c'est normal que lii dal Abdou Karim Gueye Xrum mu dal ko boo ma waxee c'est normal waxuma ne jaadu na de mais c'est normal suba man la suba man maa si topp suba Antoinette la suba Dame Mbodj la après demain ça sera le tour de Clédor ñu toog fii tasewaat di conférence de presse parce qu'on a donné aux policiers un permis de tuer quand on radie le capitaine Touré alors qu'au même moment d'accord les meurtriers de euh, de nos 13 martyrs des événements du, du mois de février et mars sont libres comme l'air quel est le message que le président Macky Sall donne au peuple sénégalais et particulièrement aux agents des forces de défense et de sécurité il leur dit ceci vous pouvez tuer tous les manifestants que vous pouvez, je vous protégerai. Si c'est dans le cadre de la défense de mon ordre néocolonial, moi nervi du néocolonialisme, Macky Sall. Voyez, si jamais vous refusez d'appliquer un ordre manifestement illégal, comme le capitaine Touré l'a fait, Wallahi, je vous radis. Si jamais vous vous permettez, vous, bande d'activistes et d'opposants, de résister dans la rue, je vous écrase. Et donc, il y a des policiers qui entendent ça. Il y a des gendarmes qui entendent ça. Et ce sont ces gendarmes-là qui sont, d'accord, les tortionnaires des Abdou Karim Gueye. C'est aussi simple que ça. C'est un permis de tuer. On les encourage. Pourquoi Parce que troisième candidature mu ngi fii ñëw coow li dina fi métti mobilisation dina am parce que par la force nag dina am. amul arrestation amul emprisonnement amul torture amul toroxal amul bavure policière. amul xawma mais contrôle judiciaire liberté provisoire on va se mobiliser troisième candidature di fi am et comme troisième candidature di fi am si tu sanctionnes les policiers yi nga xam ne ñoom ñoo def li ñu def Abdou Karim Gueye mais demain aucun policier boo ko waxee tirer sur la foule aucun policier ne va tirer c'est comme ça qu'il faut le comprendre quelle est la fonction des violences policières parce que les violences policières ont une fonction dans un régime néocolonial c'est de faire peur c'est d'écraser c'est que képp kuy génn nga ragal waaye askanu Sénégal du ragal ñun bu ñu ragal donc loolu laa bëggoon wax fii ñu xamee ko noonu waaye tamit foog sénégalais yi ñu gën a am fulla ak fayda ci ñun nee naa ñun sénégalais tant que ñu ngi nangu dem police ak yi ñu ñuy gëdd ñu ne pat mais on encourage la violence policière agent de force de défense et de sécurité bu la yuuxu nga ne pat yuuxu boobu mooy jur saaga saaga boobu mooy jur dóor dóor dóor boobu à la longue mooy jur rey il y a une banalisation de la violence policière et la violence policière ou des gendarmes ou de certains militaires elle n'est pas seulement mortelle criminelle meurtrière elle est aussi verbale elle est aussi psychologique eh looy def fii c'est ça la première violence nga ñëw di légaliser këyit eh looy def fii ñu koy banaliser on en rit même suñu yenn mbokk yi yàqamte wu ñu soxla këyit bu leen di yóbbu police wala gendarmerie Et nous, on banalise ça. On rit de ça. alors que loolu mooy jur di jur di jur ba jur ba li dal Abdou Karim Gueye xurum xaax et c'est tout simplement inacceptable donc ñun citoyens sénégalais ah, il faut ñu xam lu ñu bëgg il faut ñu xeex loolu ñu bañ loolu ah, Habib Anne Habib Anne moom mooy agent ministère de la santé bi nga xam ne moom moo délivré un certificat médical à Abdou Karim Gueye Xrum Xax jox ko une incapacité temporaire de travail de cinq jours yéen quatre jours merci quatre jours na naa ñëwaat bu si kanamee lan moo tax ma ne cinq jours gis ngeen Abdou Karim Gueye mu takk bandaas médecin bi di ko defal certificat médical mu ne ko incapacité de travail de quatre jours yéen est-ce que eh, non mais man aw ma doctorat médecine quoi jànguma jonguma mais am na lu xel mën a nangu kii di kii dinañ ko tàggal ñii morso ñu nañ ko 4 jours moi quand on m'a agressé à Nianing on m'a fait un certificat médical de 5 jours je n'ai rien demandé dama ñëw taxaw ne eh leen ma wax leen bu dee bu dee incapacité de travail temporaire de une heure de temps bind leen man je cherche pas un certificat de complaisance ñu ne ma 5 jours je n'avais pas de bandage je n'avais pas de truc comme ça c'est vrai que je souffrais mais énormément donc il faut tamit il faut qu'on soit sérieux dans ce pays que lii implications yi sont des implications politiques c' est pas parce que lii dafa nar a jur coow c' est pas parce que Abdou Karim Gueye ce n' pas un citoyen lambda parce que lu ko laal dina jur coow c' est pas parce que diw ak diw dañoo bokk ay mouvement que on va banaliser ça donc la première résistance mais c'est la résistance des euh, des fonctionnaires de l'État mais yàlla moo fi am nous ne sommes pas des fonctionnaires du président Macky Sall nous sommes des fonctionnaires du peuple sénégalais Abdou Karim Abdou Karim Gueye Xrum Xax laajtewul certificat médical de complaisance waaye nag quatre jours vous pensez que c'est sérieux vous pensez que c'est sérieux mais nous dénonçons mais énergiquement cela et même le certificat de genre de mort de Abdou Faye dañoo waxoon ne mais y a un problème Abdou Faye dafa am góom ci bopp bu ngeen gisee certificat médical bi du ngeen gis fenn mu bind ne am na góom ci bopp donc il faut que ñu xoolaat affaire yi lii du dëgg du yoon ñu ngi koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem parce que yii itam mooy encourager affaire yi moo tax tamit may dellu waat ci sénégalais souvent suñu mbokk yi dañuy dee kaso police wala gendarmerie d'une manière boo xam ne mais c'est incroyable ñu naan la defal autopsie nga naan non non non teg naa ko ci loxo yàlla non vraiment on a du respect pour vous parce que nag yéen a war jël yéen a war bi mais en refusant de faire une autopsie pour faire éclater la vérité mais vous nous mettez tous en danger bi du feeñ ci cas Abdou Faye wala ci cas xaw ma kan ak kan mais ça va arriver à Abdou Karim Gueye Xrum Xax à Clédor à Seydi Gassama à Guy Marius Sagna à Antoinette à Fatima à Fatou donc ñun tam foog ñu jël suñu responsabilité donc man lii daal laa amoon li may wax di wax ne mais y a une banalisation mais extrêmement grave bi Abdou Faye gaañoo le vice-président de l'Assemblée un des vice-présidents de l'Assemblée nationale a parlé de chat et de criquet waa léegi muus bu dee criquet xaw ma bu dee ñu naan xaw ma dugg na fi génn na fi vous vous rappelez vous vous rappelez doomu aadama dee ñu naan kii dañ ko rey ñu ko dafa suicidé wu ou on l'a suicidé waaw waaw il s'est suicidé ou on l'a suicidé un vice-président de l'Assemblée nationale naan waa léegi muus bu fi dee criquet bu fi dee ñu ne woy xaw ma autopsie dugg na fi génn na fi mais c'est ça la banalisation moo tax tamit <laughs> yii rek la mun jur et am na yeneen ñu ñëw am na yeneen yu ñëw ma ne réew mii depuis 2012 assemblée nationale waroon na waxtaanee les violences des agents des forces de défense et de sécurité protéger ay Auchan ay Total ak yooyu waxuma amul solo de c'était un des objectifs des deux lois des deux réformes là de vendredi dernier mais attends quand les gens se font assassiner régulièrement comme des mouches comment une assemblée nationale digne de son nom ne peut pas en parler comment un exécutif au service du peuple ne peut pas en bés bu nekk y a quatre ou cinq ou dix villages yoo xam ne ñu ngi xeex ndax suuf bu ñuy sàcc mais assemblée nationale musuñu ko dajalee pour corser les terroristes fonciers mais ñu naan xaw ma dugg na fi génn na fi donc foog ñi nga xam ne ñun ñoom la ñoom ñun ñun ñoo leen jiital ñu xoolaat ni ñuy waxee ay criquet ak ay mousse pour sénégalais bu dee ça ça contribue également à la banalisation en fait des euh, des forces de défense euh, et de et de sécurité alors euh, fii daal xam nga li fi am dama koy waxaat le projet foofu laay daanelee le projet sénégalais c'était un peuple un but une fois waaye nag Macky Sall en a fait deux peuples deux buts deux fois si c'est Karim Xrum Xax rey leen mu dee si c'est Clédor rey leen mu dee si c'est Cheikh Omar Diagne rey leen mu dee si c'est xawma Dame Mbodj fu ngeen seen rey leen mu dee si c'est Guy Marius Sagna rey leen mu dee si c'est Karim Wade tëj leen ci kaso waaye doyul tëj leen ko à ciel ouvert au Qatar si c'est Khalifa Sall tëj leen ca kaso waaye si ce des gosses de riche ah impliqués dans la mort d'une fille ñuy parle de drogue et tout ça ñu tëj leen dans une prison dorée ñuy yore ay téléphone di def lu leen neex au nom de quoi Au nom de quoi Nous, on a... Bah justement, vous, vous, avez, vous êtes cinq à avoir été agressés par des policiers. À Nyaning, c'était le 5 mai, on était cinq également à être agressés. Cinq Nous sommes le 5 juillet, deux mois. Le 3 juin passé, on nous a convoqués à la gendarmerie. Bataille, rien. On n'a pas convoqué un seul de nos nervis, identifié leur nom, leur numéro de téléphone, donné à la gendarmerie. lu tax may wax loolu c'est que faut faut pas être étonné que le même traitement soit réservé à ce dossier bu dee Sonko waaw procédure d'urgence bu dee loi pour criminaliser les futures mobilisations formidables du peuple sénégalais contre une troisième candidature illégale et illégitime procédure d'urgence mais bu dee comment il s'appelle Masserigne naka Masserigne Faye vous êtes indigne vous êtes un policier indigne monsieur Masserigne Faye Parce qu'il y a des policiers dignes, il y a des gendarmes dignes. Mais monsieur le commissaire, enfin, monsieur le commissaire, c'est ça Monsieur le commissaire Marceline Faye, Faye c'est ça Vous êtes un commissaire indigne. Vous souillez et vous discréditez cette institution qu'est la police. Vous faites partie de cette pourriture, mais vraiment qui gangrène la police sénégalaise, les forces de défense et de sécurité du Sénégal. Nous n'avons pas de C'est extrêmement grave. Et, et j'avertis l'opinion publique nationale et internationale et je termine par ça parce que j'ai énormément de choses à dire mais vraiment foog nga wax tuuti quoi ba pare dem je veux terminer par un point depuis plus de vingt ans que je fais des gardes à vue que je suis victime d'arrestation c'est la première fois que j'entre dans le camp Abdou Diassé Karim Gueye Xrum Xax ak ñoom seen waa nitu dëgg bi ñu leen dugalee la veille dans le camp Abdou Diassé c'est la première fois may dégg ay manifestants dugal dans le camp Abdou Diassé qu'est-ce à dire Qu'est-ce que cela signifie Est-ce que cela signifie que le président Macky Sall est monté d'un cran dans sa tentative d'intimider les résistants et les opposants, dans sa tentative de réprimer et d'opprimer les résistants, les activistes et les opposants Qu'est-ce à dire à ah, journalistes en général, journalistes d'investigation, analystes politiques, euh, politiciens, activistes, etc. il faut analyser ce fait-là. Qu'est-ce que ça signifie C'est un tournant dans l'affaire. Autant ce qui s'est passé le mai à l'Assemblée nationale est un tournant, autant le fait que les Karim Gueye, Abdou, euh, les Abdou Karim Gueye et les autres qui se sont fait arrêter le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, c'est ça Donc jeudi et vendredi, nous dougalène quand Abdou autant c'est un tournant. Et je termine par une bonne note. Quand on nous a arrêtés au camp Abdou il y a des policiers qui ont ramené dañoo wax ay wax yoo xam ne dama ko dégg rek tiit tourné eh, ay ne Guy Marius Sagna asseyez-vous s'il vous plaît c'est rare d'entendre un policier dire s'il vous plaît c'est rare d'entendre un gendarme s'adressant aux citoyens sénégalais et de dire s'il vous plaît asseyez-vous s'il vous plaît j'ai été tellement agréablement surpris que je leur ai dit respect et admiration à vous. Parce que encore dans la police, encore dans la gendarmerie, dans l'armée, dans la douane, il y a encore des citoyens sénégalais, des policiers, des gendarmes dignes. Et vous avez tout notre respect et notre admiration. Mais les policiers de la race et de l'acabit de Masseline Faye, vous avez tout notre mépris. Je vous remercie.